asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ziar di leen jaajëfal fas yéene seq ak yéen bu gàtt jëmale ko ci li ñuy dëgmal mbokk yi bi ngeen ñu denkee réew mi ak léegi bi ngeen jëlee seen tànneef tànnee ko son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ak tey jii bi ñu defee suñu premier conseil des ministre ak tey jii muy le 9 avril defe naa yeggagul ñaari weer waaye lu bëri ci yéen dana dem ba jàpp sax ni mbir mi weesu na ñaari weer li ko waral nag mooy bi ngeen ñu dénkeeg léegi nelawuñu lekkuñu dudul jublu ci liggéey bi ngir am ay résultat fii ak jamono yoo xam ne kenn ku nekk ci dina ci teg bëtam loolu moo waral lañu déglante woon ak yéen ndax nun duñu layoo kenn ku dul askanu Sénégal layoo ñoo kuy politique layu ñu noo layoo ñoo ak kuy tas xabar ñun kenn lañuy layanteel mooy kii yéen ñii nga xam ne yéenay askanu senegal moo tax saa su ne ci jamono dinañu dellu siwaat waxtaan ak yéen fësal liggéey gi nga xam ne moom lañuy def te di ci woo képp koo xam ne sopp nga ñu nga jublu sa say mbir ci fësal li nga xam ne lu ama am solo la loo xam ne ñu ngi koy liggéey te buñ ko yàkkee bu soobee yàlla ñëpp dinañ ne ah xalaatuñu woon lii mën na am senegal ci anam googu laa ne la ñu waxante li ñu waxante woon ni yéen askanu senegal mooy bu ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu li nga xam ne moo fi am te ñëpp xam ko mooy ku ñu dénk nga jël alalu réew mi yëpp damm say poos ak say poosu mbokk ak say poosu xarit rawale alal génne ko réew mi non seulement dina dakk waaye ku fi góoxoon di nga ko goxi ñoo ngi ci liggéey boobu te ci fan yu néew di ngeen gis résultat bi xam naa looloo tax sax ngeen gis yëngu yu temps yi ku ne di yooxu ku ne di yónnee ñu lay waxal waaye ma bëgg a dalal seen xel fii dara du fi yëngu ndax dal rek a fi am jàmm rek a fi am ñaareel bi waxoon nañ leen nii lii nga xam ne mooy li ñu yàlla wërsëgale ci alal lii nekk ci or lii nekk ci zircon lii nekk ci phosphate lii nekk ci pétrole lii nekk ci gaz ak yeneen ak yeneen ak li ne sax ci suuf si nga xam ne ñu ngi koy dagg di di joxe mu am ñenn rek ñu ko séddoo woon wala ñu dem lënkaloog ay waa bitim réew ci anam yoo xam ne baaxul ci réew mi ñu ne leen woon bu ñu ñëwee dinañ ko saytuwaat lu ci dul yoon ñu delloosi ko ma gaaral leen ni ñu nga ca loolu te ci fan yii di ñëw di ngeen gis liggéey giñ ciy liggéey ñu waxoon leen ni dinañu liggéey ci li nga xam ne dina yenni askan wi dina wàññi coono askan wi ci li jëm ci dund gi loole ñu ngi ciy liggéey ñu ceeg benn pression nag waaye ñu ngi ciy liggéey te ci fan yu néew ñu ñëw ne askan wi résultat baa ngi nii ci li mën a nekk tey ak li mën a nekk ci kanam ak li nga xam dañ koy liggéey dans la long terme ñu waxoon leen ni dinañu góorlu bu ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu fexe ba li nga xam ne mooy yitte yi wala li nga xam ne mooy li ñuy jiital mooy lu ñuy def ba dajale koom gu doy dugal ko ci mbay mi dugal ko ci càmm gi dugal ko ci napp gi jaare foofu taxawal li ñuy wax industrie ay usine ba loolu mën a jur ci réew mi koom te lu jur koom andi liggéey lu andi liggéey wàññi ndóol liggéey boobu ñoo ngi ci te lii ma wax ni yëpp ñoo ngi koy tënk ci ñaar lu matul ñaari weer ñu ciy liggéey liggéey goo xam ne amul noppalu kon li ñu diglante woon ak yéen di ngeen ko gisal seen bopp ci lu soriwul rek ngeen ko gisal seen bopp ci mandat bi yépp ndax gor lañu te duñu wax muy dañ te benn xeetu politique bi ñu xamoon dina dañ ci senegal ba faw gëm naa ne bu ñu paree li ñuy def nii bari na ñoo xam ne dootuñu tax ñeme taxaw ci kanamu askan wi ne leen jox leen ma nomb tànk loolu nag neexul ñëpp moo tax weqatu wi bari moo tax coow li bari waaye ñun dañoo ànd ak dal ak tey te wax sénégalais yi nii nañu tëdd nelaw dal ak tey ak jàmm rek mooy am ci réew mi jàmm jooju nag dafa war a ànd ak ñu bëgg suñu réew bëgg suñu réew mooy léeg-léeg réew du état rek moo koy développé président Diomaye fay ñun ñëpp a ànd fal ko waaye moom dong munul defar réew mi man mi mu tabb may ilimaanu jëwriñi mënuma defar réew mi ak ñi ma àndal ñëpp am na luñ ci mën am na lu ñu mën a tële surtout réew moo xam ne dañ koo fekk ci ndool bugg koo yóbbu feneen moo tax ci anam yooyu nag day laaj ñuy daje sénégalais yëpp di daje léeg ñu am lu ñu bokk ne lii dañ koy defandoo loolu solo li tax mu am solo mooy benn day gën a dëgëral diggante yi ñaar day gën a feddali bëgg gi ñu bëgg suñu réew li ñuy wax patriotisme moo tax ñu ne woon programme économique ñëpp xam nañ ko yeneen programme yi nga xam ne réforme yu meeg yu mag yi la nga xam ne muy réforme justice bi ndax ñëpp gisoon nañ li fa xew muy réforme système social bi muy réforme euh, finance publique yi muy réforme diplomatie bi muy réforme état bi ak administration bi yooyu yëpp dinañ ci ñëw benn benn di ko def ngeen teg ci seen bët waaye ci suñu programme dafa amoon beneen pàcc bu am solo mooy li nga xam ne dañ ko tuddee civisme wala citoyenneté moo tax bu ngeen seetee conseil des ministres ñaari weesu yëpp wax nañu lu jëm ci service civique national président de la république dénk ko primative muy lu ñuy laat ndaw ñi particulièrement ndaw ñi ñu mobiliser leen ci ay mbir yoo xam ne ñu lënkaloo ceeg armée bi njëriñu réew mi lay doon dinañ ci am formation dinañ ci am certification waaye dinañ ci jëriñ seen réew loolu lu ama am solo la ci réew mi ñu ne programme civisme boobu programme citoyenneté boobu la ñu bëgg a lancé moom lañu ñu bëgg door samedi bi di samedi premier juin incha allah ci naka son excellence président de la république wax na leen ko démb mooy dañu ne ñu ngi dëgmal nawet ñëpp xam nañ ni Sénégal nawet dafa fara ànd faral di ànd ak ay problème ñun gëm nañ ni fileeg lu néew ci ay at dinañu regle problème yooyu yëpp ba mu jeex incha allah waaye dañuy doog a toog kon ndànk-ndànk lañ ciy dem te bu ñu demoon sax ba ba lépp mate du tee nañu continuer di woo citoyen yi ñuy génn di bokk ay liggéey ngir luy defar réew mi ñu ne kon woo nañu képp kuy sénégalais xeebuñu ci kenn góor jigéen mag ak ndaw samedi premier juin bi moom président de la république moo koy jiite dina génn moom ci boppam sol blouson am wàcc ci terrain bi man mii ak gouvernement bi ma jiitee bi nañu génn sol suñu blouson wàcc ci terrain bi képp ku am ndombal tànk état di nga wàcc ci terrain bi ñu nekkoon kon mboolem seen citoyens yi nañu ànd ñu génnandoo ñu lënkaloo si nag ak larme national su ma nee l'armée nag lépp xaj na ci l'armée bi ngeen xam ma nga ca gendarmerie ma nga ca police ma nga ca waaye sapeur pompier ma nga ca service d'hygiène ma nga ca keneen ak keneen ak ñi nga xam ne seen dañ leen dañ leen féetale loolu ñu mel ni ay SONAGED lu mel ni ay UCG ak keneen ak keneen ñu boole li ñu am yëpp ci jumtuwaay yi daa di dem defar suñuy gox defar ko commencé ko ci lépp li nga xam ne ay canal la ay caniveau nga xam ne ndox mi ci lay jaar la fa nekk ci ay saako ki ay mbalit yi nga xam ne moo koy bloqué ñu génne ko lépp li nga xam ne place publique la ñu defar ko ba mu rafet ak yeneen yeneen yu mel noonu lii dafa yitteel lool lool lool président Bassirou Diomaye Faye ci programme am yitteel ñu lool lool ba ñu ko doon def ci jamono joo xam ni egsee guñu ci nguur gi kon may dalal xelu sénégalais yi li ngeen ñu dénk ña nga ca te seen xel dina seen xool dina sedd guy xam naa ni sax sedd na ndax yéen a ngi gis jéego yi ñuy teg xam ngeen ni ñu ngi teg suñu tànk ci dëgg ak liggéey ak fas yéene defar réew mi waaye ñu leen di gën a dalal seen xel te wax leen ni delloo nañ tàllal suñu loxo pour ñu bokk ñun ñëpp takk suñu ndigg defar réew mi asalaamualeykum wa rahmatulah